baaluma la baaluma la dernière fois da nga doon da nga santet ma fóot ma ma bu foor bu pataa bu yàgg a d'accord on verra ma la mere ba tey bi baaluma la yàlla la waxoon xale du tànga santet mag su ma waxee dangay ne waaw te doo ci teg baat waaye damay wax benn nga wax fukk ba wóor loolu c'est normal di nga ko defati hmm? neen baal ma tata wala tata bal touche baal ma dootuma ko defati yaay sama xarit